asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV euh, mbokk yi nag tey maa ngi jàkkaarloog euh, Pape Malick Diop bu soxna umu Këlso Mbay bu soxna umul xayri si bu Serigne Babacar si bu Seyyidil Xaaji Malick si euh, tabarakallahu mu am bis nag bu mag boo xam ñu ngi ko war a def le 28 mai mu war ko defal kan maamam jooju Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji ñoom ñaar ñu seq lu rëy mu koy delloo njukkal nag le 28 ñuy nekk ci dixième édition bi tabaarakallahu ñu bëgg nag déglu ko Pape ñu bëggoon laa laaj benn question rek sa diggante ak Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji fan la commencé. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xaaj ñoo ngi lay nuyu di la ziar di kontaan bu baax di nuyu téléspectateur Ndox TV yëpp dinaa kontaan bu baax a baax ci laaj boobu nga ma laaj sama digganteeg sëñ Mansour si euh, ku ne xam na ni sëñ Mansour si ak soxna Umu Xayri si borom waañ wi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp sëñ suur jël taawam bu jigéen tuddee ko soxna Umu Xayri si borom waañ wi en 2002 sëñ Mansour si borom daara ji moo may werd hmm? waaw moo ma may werd moo ma may salaatul këram 2002 def na vingt ans ci ren ñu yàlla dogal sëñ Mansour si amoon ak sama woyjur soxna Umu Këlsoom Mbay kóllëre di nijaayam di xaritam mais soppoon ko loolu euh, ma nekk euh, tout tànk gis kóllëre boobu sama yaay amoon ak soxna Umu sa boobu sama yaay amoon ak sëñ Mansour si borom daara ji loolu di law di law di law ma ma sopp ko loolu moom it mu bàyyi ma xel fu mu mos a nekk mos naa ko fa fekk bu ñëwaan rawdu sëñ Babacar si di julli si ajuma amul ajuma bu ma bu ma daan jëlal boo xamante ni daaw ma dem nuyu ko ziar ko mu ràññee ma fu mu mos nekk ci saalam boobu maa ngi nekk tout tànk nekk eh, école 1 dama daan def bu ma génnee récréation sax dama daan dem saalu sëñ Mansour fekk ko foofu ci euh, buy buy waxtaan ci ziar yi wallahi alazim dafay wax mbooloo mi may leen sama sët bi mu ñëw ëmbal ma cofeel ma ëmbal ko cofeel ba yàlla dogal bi ma demee ba war a jël werd euh, ci moom laa dem jëlee ko mhm. yàlla dogal na it hmm, loolu benn la ci relation yiñ ñu seq yàlla dogal na bi ma demee it ba jàngatuma ma bëgg a voyage bëgg dem bitim réew en 2004 euh, ma ñëw seet si ko jox ko sama passeport pour mu ñaanal ma boobu maa ngi waroon dem ambassade France euh, ci mbaaxam ak teddangeem ak euh, bàyyi xel gu ma bàyyi woon xel def ni ma yow sa yoon maay jël lépp en charge duma la bàyyi sax ngay dem ambassade ci otom la ma dugal woo ministre des affaires étrangères au temps 2004 boobu Cheikh Tidiane Gadio moo ko nekkoon maag moom ak Omar Diop lii Omar Diop sede la ci ñoo ànd si otoom ñu dem ba jëm naajo ci la ministre bi ñu dajeeg moom kër gi këram almadi mu laaj ma sama photocopie passeport ak sama ñeenti photo jox ko ministre bi ñu ko dama bëgg kut oo kut nga indil ma passeport diplomatique moo ma wutal passeport diplomatique en 2004 lu ne defal na ma ko nag dama daan nekk bitim réew sax sëñ Mansour woo ma téléphone au lieu que man ma koy woo mu woo ma téléphone lu dul benn lu dul ñaar Omar Diop seede la ci Ndiassy Guèye seede la ci am na jour boo xamante ni dama nekk bitim réew jékki-jékki ba ci àgg Ndiassy Guèye woo ma téléphone ni ma sama moo soxla moo bëgg a wax ak yow téléphone mu nekkoon nit ku baax féete ma fu nekk ci àdduna yàlla dogal ma it ma amoon ci moom yéene bu kawe kawe kawe yàlla dogal 2012 bi ma ñibbisee définitivement am yéene bu ma am ci moom ba commencé yéene bi waaye la ma ko yéene woon dëgg dafa lu ma ko am na lu ma ko jot a defal waaye la ci ëppoon dafa lu ma ko moo waral bi mu génnee àdduna ma xalaat lu ma ko war a fayee ci la sama xel ni yar ni kii daal amul lu ma ko war a defal lu dul rendre ko hommage ci laa dem waxtaan ci ak sëñ abdu mu rafetlu ko moom it ni ma sëñ Mansour euh, li mu liggéey ci diine ji waroon na euh, àdduna yëpp rendre ko hommage ku nekk defal ko journée mu ma lii da nga koo njëkk a xalaat waaye ñun ñëpp nga ko defal jox ma ci ndigal euh, jox ci sëñ maam Malick si doomam ndigal ni ko bis bi na ko bàyyi xel te at mu jot bu ñëwatee na nga ko ko defal lii mooy sama relation ak sëñ Mansour si ci li ma mën a wax waaye relation bi ëpp na loolu waaw am na yoo xamante ni du waxu télé waaw waaw pour ñi xamul euh, lu waral journée bi xam ni sëñ Mansour si benn sama sëriñ la moo may werd 2002 def na vingt ans ci ren bi ci des it sëñ Mansour si dafa am alaaka bu mu amoon ak sama maam ba jël taawum bu jigéen tuddee ko ko euh, am relation bu mu amoon ak sama wayjur wu jigéen sama yaay ba yëkkati bie màkka jox ko ko ba koy jox keroog ma maa moom ñoo ànd fekk sama wayjur dem na màkka juróom yoon mu jëlaat bie bi may ko mère Aminta si taala mu soppoon loolu sama wayjur bàyyi woon ko xel loolu ma juddu gimmi gis relation bi mu am ak sama yaay gisit fi mu ma tegoon ak bàyyi xel gi ma bàyyi woon xel may ma weer da xam nga yemul ci loolu ki ñëw indi sa passeport ni la dama bëgg voyage dafal ma ci ñaan xoolal yitte boobu ak yéene boobu nga ni ko ëpp naa def yow sa voyage maay jël lépp en charge wutal ma passeport diplomatique daggal ma billet première classe bi may dem mu ànd mu boole maak Habib doomam ñoo ànd bi ñuy dem ci gàmmu Treviso 2004 ma nekk foofu may woo téléphone di ma nemmeeku di ma yónnee ay ñaan di ma taxaw lii ma doon sama relation moom moo tax bi mu génnee àdduna ma ne awma lu ma ko mën a defal ginnaawam lu dul di ko rendre hommage di ko ñaanal moo tax journée bi. rendre hommage bi le 28. le 28 mai. 2000 ah, dama ko jox Serigne Sidi Ahmed si it moom it eh, dafay sama dafay sama wëllëre wayjur di sama wëllëre di sama xarit Euh, euh, sëtoo ma loolu manit ma maamoo sama maam la euh, nekk nit ku baax nit ku tedd sama soxna bu ma mujjee am ni moom moo ma ko ñaanali relation bi ma amoon ak sëñ Mansour moom laa am ak moom macha allah sëñ Mansour si borom daara ji fa ma féete woon fa ma féete yéene bi mu amoon ci man it moom la am ci man moo tax hommage bi ma ni du ma ko du ma ko ma moo tax parrainage bi duma ko defal kenn ku dul sëñ Sidi Ahmed si bu jag saaw ndax daf ko mérito ci man mérito ko ci sama wayjur wu jigéen ndeysaan ba gis marrainage bi nga jël ko jox ko soxna Mbukul sa ak daay présidente nationale daayira Nexmati ak soxna Daba Mbay waañ lan moo waral ñaari marrainage waaw ñoom awma lu leen ëpp si àdduna ndax ñoo fi samay wayjur di fi sama kilifa di samay yaay te man dama gëm benn affaire dama gëm ni nit cër boo koy defal dang koy defal ci dundam moo tax te mënuma koo marrainer ku leen ëpp ñoom ñaar parce que nit ñi dañuy tàmm bu ñuy def ay journée yu mel nii dañuy seet ay politiciens wala ay nitu àdduna di leen ko marrainer mais man aw ma ñu leen ëpp ñoom ñaar moo tax ma jël marraine bi jox ko Soxna Daba Mbaye ndax taxawaayam mérito na lu ëpp lii mérito woon na Tiwaawan bis bu bu ñu fiy def ñu koy ñu marrainer ko ko ndax taxawaayam ci xadra bi ak taxawaayam ci mission bi nga xam ni. moom la ko waajuram bu baax ba dénkoon soxna Umu Xayri si nga xamante ni moo ngi ci waañ wi subaa ngoon ba bëccëg saa yoo ñëwee ci waañ wi nga koy fekk kon kooku mérito na bu may def bis ma mara nekk ko soxna Umu Kalsum Mbay kazalika di sama waajur di sama xarit di kenn ci man di koo xamante ni fa ko waajuram bu baax ba soxna Umu Xayri si tegoon parce que soxna Umu mission ñaar la woon waañ wi ak daayira yi dafa jël waañ wi féetale ko soxna Roqaya Mbay jël daayira yi féetale ko soxna kala soxna kala yi nekk koo xamante ni bis bi moo ma ci dooleel li naan feccum liir bu bu neexee ndey jaate yi ca loxo ya tey bu dul moom kon bis bi duma ko defati waaw wax dëgg yàlla ndax bi ma koy commencé metti na woon loolu amul obstacle yu ma ci rencontré wul mais moom moo takk ndigam ak mbooloo nga xamante ñuy waa daayiratu Nihmati ànd ak ñoom dooleel ma ci de passage maa ngi koy sant moog waa daayiraam yëpp di leen ñaanal yàlla yàlla dëgëral leen yàlla dëgëral leen seen taxawaay ba mission bi nga xam ni bëgg nañ ko ci ëttu kër di Hadji Malick si ñu mottali ko di ci lancer un appel di ko yëgal waa daayira bi yëpp ak fu section mënti nekk jërëjëf Serigne Mame Malick je crois moom mooy def bis ba kon maanaam comme ni ko sëñ sëñ sama xarit mm-hmm. ni doomi yaayi daara ji mm-hmm. bu dee defal bis borom daara ji mm-hmm. jaadu na mm-hmm. noonu la ko Pape Malick noonu la bu borom daara ji jox ko muy waxtaan sargalu borom daara ji loolu nan la demee sëñ Mame Malick si moom sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu si barkeem at mi ma ko njëkkee def moo jëloon bis bi teg ko ci loxo sëñ Mame Malick si euh, ca déwén sa ba mu dellu see fekk na bi ñuy jàpp date bi sax sëñ Mame Malick am na programme bu mu engagé woon mais sëñ Abdou Aziz Sy Al daf ne ko sama bis su sët bi dama ko fonk bàyyi ko xel dama bëgg bu jotatee bu ci jàpp beneen programme nga koy def jox naa la ci ndigal euh, ca déwén sa encore mu ñëwaat sëñ Abdou woowaat paate ni ko wal ma sëñ Maam Malick mu ñëw mu ni ko nag damaa bëgg bis ni tey ndigal li ndigal luy continuer la at mu jotati na bàyyi xel bis bi te bu ci jàpp beneen programme ku ne xam na ni sëñ Maam Malick Tiwaawan day wax ni du fi ëf micro lu weesu ay ziar yu mu def këram amul benn programme bu mu fi mosa nangoo def lu dul luy programme te programme bi ndigal la sëñ Abdou Aziz Sy Al moo ko joxon ndigal waaw ñu ciy rendre hommage nag ren euh, ñoo xamante ni ay jàmbaar yi fakk tëdd lañu woon ci bis bi ku ci mel ni sëñ Pape Malick Sy euh, yàlla na yàlla yo leeram te taas ñu si barkeem mm, ginnaaw demuk sëñ Abdou ñaari édition yi ci topp muy deux mille dix huit deux mille dix neuf taxawaay ba ci sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin amoon ndax sëñ Abdou wax dëgg yàlla bis bi daf ko mos a téye euh, dooleel ma ci wax dëgg yàlla di ma ci gunge ci ay ñaan ak yëpp yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla yokk leeram fa mu tëdd ginnaawam nag sëñ Pape Malick taxawaay yu rafetee noonu la ci amoon moo tax ren ñu ko ci rendre hommage mook Seydi Jamil bu sëñ Mansour si bi nga xam ni moom bis bi moom daanaka mën na wax ni lépp moo ko daan def bu jotaan mooy ubbi këram mooy jël ay oto otoom jox ñu mooy jël mooy yi war yëpp teg ko ci suñu loxo pour ñu mën a réussir bis bi moom it ko ciy rendre hommage di ko ci ñaanal di ko ñaanal yàlla moom it yàlla na yàlla yokk leeram fa mu tëdd ak sëñ Alioune sàll bu jàmmalaay ak suñu yaay soxna Ndey Astou Cissé bu Pire. sama dernier moom mooy maa ngi koy yégal àdduna yëpp. fu jullit nekk di wax ashhadu an laa ilaha illallah ci Sénégal ba ci bitim réew ñoo lay yëgal bis bi ndax bisu xadara bi la euh, bis bi dugg na ci calendrier xadara bi kon képp koo xamante ni taalibe tijaan nga wala ngay wax sax ashhadu an laa ilaha illallah ñoo lay yëgal bis bi di la sant yow El Hadj Meng borom Ndox TV di ñaan yàlla Ndox TV yàlla na dem ba nekk télévision comme ni ko xalifa bi ñaanee ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa jërëjëf El Hadj merci beaucoup jërëjëf euh, gis ngeen ko mu ngi noonu alxaaji Mbengue Diop ak mam Ndokh TV le 28 nag mooy samedi bii di ñëw n'est-ce pas incha allahu rabbi fu jullit nekk ci àddina ñu ngi lay woo nga ñëw ci xadara Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy ku bëgg a déglu xilaas ba Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji daan jàngale bu samedi na nga ñëw déglu si sëriñ Mame Malick si bu sey Seydou man Mansour borom daara yi ku bëgg a dégg xam bu baax na nga ñëw sëriñ Mame Malick Sy noonu la koy defee gàmm googu ku ko tardé tardé nga gàmm gu rëy rëy ñu ngi ci woo ñëpp ci àddina alxaaji mi ngi jëf ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf